Assalamualaikum. ah maki ma nyawat dama nyawat balang kena dem soare ma yak marem. ma faram fatya se diskur bi <laughs> wallaay asim am go deux minutes sata. am ga. <laughs> wallaay Achim merci beaucoup ah Macky Sall Yo di se diskur bi bugguma ko wona a déglu sax de waaye damaa mu ko ba disko ko ko ah ba fe. ma gis le nga def de bilan li nga def def lepp nga def ko bilan resume ko ci 30 minutes mané ñi nga xamné nak nag dañ la daan togal ci télé yi di la waxal di la défendre <laughs> di défendre li nga def dañ la yapp ndax maki ba nga togué ba légui li nga wax ci 30 minutes yi nit toogu ci télé bi and ak yow di ko wax ci ni nga liggéey lu ni toll te depuis un certain temps ñi tok ñepp war défendre sa bilan nga nek ci fin de gouvernance ñoom li ñuy waxtaane mooy aji Sarr Maître El Hadji Diouf Mame Mbaye Niang El Malick El 37 El 80 Mame Mame Boye Diao euh, Ismaïla Madior Fall lii donc la ñuy waxtaane bu ma doon yow nag danga leen di dajale fële ca Maris Ndiaye xaj ngeen fa bariwu leen bariwu leen wut sa ceinture gu saf sàpp def leen ara ñu raa di ñëw ku ñew nga ñamal ko di xex bàyyi mu genn nak dañ la yàpp <laughs> bref Macky ma gis nak li nga résumé lepp ne mom nga def ça tourne autour de infrastructure te ya fi togon ba ñuy doon gone booba ngi def tanku neen ba légui je me rappelle xalé la woon nga ne bo ñëwee ci bopum réew mi ñëwoo pour défar ay infrastructure da ngay ñëw rétablir xaw ma restaurer état de droit làmmiñu daaru mooy professeur de droit bu bees bi moo ma ko fàttali <laughs> wax wallaay achim potu bouche mes oreilles yaa ko wax maa ko dégg na fi woon boo ñëwee ci boppam réew bi ñëwee fi pour ay infrastructures dangaa ñëw pour état de droit finalement nga def un discours à la fin de tes de vos de vos 12 ans def un discours qui tourne autour de qui ne touche pas à l'état de droit da nga def le contraire li nga taxone a ci la doga am confirmation que ne vous n'avez échoué monsieur le président pourquoi monsieur le président li yor am rew ci développement xam nga lu doon xamoko jangoko agriculture développé wu ci tuddoo ko ci discours ki pes moy ni nap jeni yi waxoo ci élevage waxoo ci ay liberté d'expression et tout ce qui va avec laaloo ko xamul tax laaloo ko danga cee defu dindiwoo ci <laughs> mbay mi daa gën a dellu ginnaaw euh, napp gi gën a dellu ginnaaw càmm gi a dellu ginnaaw monsieur le président autosuffisance alimentaire tuddoo ko parce que ñu lekk duñ ba suuf naan duñ ba te ko na xam ne c'est grâce à ça

Vous avez échoué et je vous en conjure, donnez le pays à quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose que vous êtes incapable de faire pendant 12 ans. Vraiment. Il est temps, monsieur le président, que vous me dites un grand au revoir. Et un grand au revoir, c'est de partir avec On n'avoue pas de de bas on n'en veut pas de ñi nga xam ne nga àndoon on n'en veut plus de Benno Bokk Yaakaar wala euh, on veut quelque chose de nous. on veut plus de ce système nous voulons la rupture et maintenant tout de suite et s'il vous plaît ci mënee nga comment nag mooy nga bàyyi ñi nga xam ne ñoo war a bokk ñu bokk te nga tàggatoo ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah bien. bonne fête bon fekk ngeen xam naa ay eh, mag ngeen du ngeen dem ci baalu Waly Seck yooyu ay Ismaïla Lo ak Youssou Ndour ñoom ngeen di wër ñoom ngeen di dem alla bon <laughs> na sol dàll yu gudd de baal dàll yu gudd koy dem waaw góor <laughs> wallaay asi Macky Sall ngoon ngi moo xoromu rek